yee asalaamaaleykum sama gars maa ngi siyaar di ndamoo di tiitro leen bëggee bu wér bon comme nu ma koy waxee rek def naa ci benn publication te bëgg naa ko leeral waxtaan ak sénégalais yi vite ci situation bu nekk rek ñu joxe suñu xalaat wax ci lu ñu gisee ak suñu ngëm-ngëm mais lenn laay xamal sénégalais yi ñu fàttaliku dara quoi boo leen demee Rëbës boo leen demee Koutal boo leen demee Kaolack boo leen demee Diourbel boo leen demee ci prison yi en fait Sénégal yëpp ñu rey nit yi ñu ngi foofu ñu jàpp quatre vingt pour cent ci ñu rey ay doomu aadama ñu ngi ci kaso yi ñu tëj donc il est inadmissible ay nit rey ay nit ba pare ñu nañ ñu toog naan dañ koy négocier ba xam ñu bàyyi leen wala ñu setal leen xanaa ñi nekk ci kaso yi te rey ay nit benn nit kese war fa tëdd perpète tiire benn nit kese war fa tëdd vingt ans ñooñu ñooy kumba amul ndey yi ñii ñoom ñoom ñooy ñu baax ñii ñoom ñooy jël ay nervi jël ay nit rey ay nit ba pare ñu la war a setal deret war setal deret bi wala war a setal crime yi dama ne ñu rey nit seen place kaso la kaso gënuñu ñu nekk ci kaso yi kaso yaa ngi fees dell ndax ñu rey ndax ñu rey ay nit benn nit buy dund amul warul mun a nan day day lijeenti problème nit ku dé ben nit bu dundu nit bu dundu nit xex yow nga dundu mom mu dé bu dee am nga ngor da nga ko défendre bu dee am nga ngor da nga ko war a pour ñu japp criminel yi pour ñu arrêter criminel yi duggal leen ci kasso bi comme seeni morom criminel yi nga xam ñi ngi ci kasso yi donc loolu il faut mu lèr criminel place am prison la donc dafa am ñu japp ay doomu toroxal len dafa am ñu japp ay doomu toroxal exilé wu donc fi amul len luñ fi négocier dama ne dund benn dund doomu jarul doomu c'est-à-dire doomu sauver doomu loolu yàlla santaane wu ko dama ne nit bu reyee nit safara nga jëm bu dee ci dund bi waratoo am jàmm bu dee ci dund bi waratoo am jàmm donc benn doomu aadama bu am sa bakkan waroo di amoo benn calcul booy def bu dul xeex amnistie bi nesti bi dañ koy xeex ba illaa yow diin ay doomu aadama la ñu rey benn liberté doomu aadama jarul bakkan benn liberté doomu aadama Ousmane Sonko réclamé wul amnistie bi nay leer musu ko wax andu ci tey andu ci ëllëg lan moo tax Atepa génn ci loolu la Ousmane Sonko waxoon naa leen ni Atepa dafa tàngal ci kanamu ci kaw Atepa ba ma ne bu histoire bi sax bëgguma leen ko raconté gis naa nijaay ji commencé see wax te waxoon naa leen ko ne leen Atepa gis nga génn na ci ba mu set wecc ba mu fa mujjee deuxième ba bu at mag Ousmane Sonko dafa tàkk ci kawam affaire amnistie la ko doon wax mu ne ko bul ma ko waxati na mujj ci tey nel Macky sàll nag ubbi ay enquête ñu atte ñi nga xam ne dañ leen a dañoo rey ak doomu aadama yi ñu rey loolu laa leen wax te loolu laa leen waxoon Ousmane sonk àndul ak lii àndul lii am lii maskaraat bi am crime yi non élucidé loolu amul du dëgg du yoon donc nay leer ànduñu ci amnistie bi tey ànduñu ci ëllëg le peuple sénégalais ànduñu ci doomu aadama nag mënul dund naan day négocier négocier ci ay intérêt nit ku dee yàlla nee na loo leen di bandi bandi ak loo leen di saay saay saay saay nee na ñu dee ngeen génn ci seen seen pexe yàlla moom moo ko wax nee na lu ngeen di bandi bandi yëpp ni ngeen di saay saay yëpp ni nga xam seen intérêt rek moo leen yitteel nee na bu nit bu xasee ba dee na ngeen ci rocc ba leen ci mënul wax lu rafet na ngeen ci rocc seen làmmiñ ñi kon moom xam nañu nit dafa bëri pexe parce que nit bu dee ba pare ñu rey la ngeen am ñu taxaw naan ay non nañ ko amnistie parce que lan ñuy calculer ay buñ ko amnistie après Ousmane Sonko génn Ousmane Sonko dafa gën ñu dee liberté Ousmane Sonko dafa gën ñu dee yow kon yow pare nga pour sacrifier ñu dee raxas deret yëpp pour benn libération Ousmane Sonko quoi Ousmane Sonko lu mu leen wax leer na yéen a ma fi dugal xam ngeen ni ngeen ma fi dugalee xam ngeen ni ngeen ma fi génnee waxu leen benn yoon dem leen def am amnistie pour génnee ma fi son Sonko musul woo tey kaay leen def amnistie pour ma génn fi benn liberté Ousmane Sonko jarul bakkanu doomu aadama dara ci àdduna jaru ko mu ay leer naññ donc calculateur yi nga xam ni calcul rek seen bakkan seen àdduna bakkan rek moo leen yitteel bay sacrifier doomu aadama yi dama ne Macky Sall doit rendre compte criminel yii di taw boobu ba léegi dañu war a arrêté dañu war a arrêté criminel yi criminel yi rey xale yi dama ne daray àdduna du tax ñu baal leen ko daray àdduna du tax ñu effacé ko dama nous avons ngi woo Macky Sall na arrêté criminels yi les commanditaires les criminels tiennent place kaso la ñoom nervi yi rey yi place kaso la ñoom ñi nga xam ni ñoom ñooy gendarme sénégalais manifestants yi seen place kaso la policiers yi rey xale place kaso la il yi heure bi Sénégal dafa leen waroon fekk ci mbedd yi ñuy xeex pour nous ouvrir des enquêtes yu sérieuses

xam ne ñu bàyyi foofu du ñuy workat au moins parce que man bu may xeex ñun ñaar ñi xeexandoo ma dee yow sa taxawaay sur terre moom mooy nga xeex ba ñu leeral affaire yi nga xeex bañ élucider niñ ma rayee nga xeex bañ jàpp ki ma rey loolu moom mooy li mun a tax sama bàmmeel sedd leer naññ ne gàññite yaatu ma xam ni gor laa bàyyi foofu waaye jaam kese lay ngay ànd ak ay nit di xeex nit ki dee ngay lijjanti yow nan nga mun a def pour lijjanti sa liberté wala lijjanti sa leneen loolu workat nga et le peuple sénégalais waruñu doon ay workot vis-à-vis de ñi nga xam ne ñun ñoo àndoon ak ñoom di xeex loolu ci koy traître la yàlla nañ ci yàlla musal on avec les morts ñi ngi ànd ak ñoom dañoo sëbewu mais heure bi seen suñu ñoom seen place suñu place la woon parce que ñu ñëpp ñoo àndoon donc ñu leen reyee noon mun nañ cee rey munoon nañ ñu ci rey loi bi loi criminelle la loi bi loi bandi la loi bi loi wuyu la te di xamal nag ñi nga xam ni dañoo fu nekk ni ñi nga xaw ñi hésité parce que dañoo nekk ci Ousmane Sonko dama leen di leeralal man mbirum Ousmane Sonko moom mun naa leen ci leeralal soxlawuma ci kenn am naa ci ay preuve yu leer leer leer leer lépp lu dugg foofu mun naa la ñu wax xanaa ci mbedd ma xanaa biir këram waaye ci kaso boobu lu ko dugg mun naa la ko wax Ousmane Sonko am andul ci amnesty bi du tey la ci ànd du ëllëg Atepa bu mu fa mujjee dafa tàng ci kawam ci affaire amnistie bii Atepa daa mujj daw club investisseur yi bi ñu ko laajee daf ne eh, génn naa ci génn naa ci la leen wax ba mu set wecc doo leen déggati Atepa wax ci doo leen déggati Atepa dox ci parce que Ousmane Sonko dafa tàkk ci kawam ne ko ànduma ci amnistie bii ñi ñu rey nañ ouvrir ay enquête ñu jàpp leen te waxoon naa leen ko te boobu léegi gisatu leen Atepa mu yëy gisatu leen Atepa mu yàbbi gisatu leen Atepa mu fay dox lay pa doxatu ci yéewatu ci yàbbeetu ci Ousmane Sonko newul ci ay dil du doomu adama buy dil niñ ko genn ci dil sénégalais nak dañoo tam dil ak sacc triant motax bo gisé gisee xex da ngay gis junni ñew taxaw dañ ko jënd parce que ñom ñep dañ leen di jënd ay marchandise lañ motax dañoo gëm ni képp kuy xex rek war nañ la mëna jënd am nga station sénégalais yi dafa bëri triant trian moom mooy lan mooy lépp lu ñuy dugg ñing ci ciy dil pour sen intérêt personnel Ousmane nak yalla da ko wutale ak muy sénégalais yalla def ko ben exemple def ko ben aussi euh, ki ki nga xamni mom moy exception à la règle nu dëkk bi torox torox torox amna nañ ay exception à la règle yalla nak mom moko def donc du nu nga mel la ñëpp mel amna ño xamni gor ci ngor lañuy ñuy am na ñoo xam ne ci concept la ñuy dee am na ñoo xam ne ci ay philosophie la ñuy dee daray àdduna safu leen Ousmane ko ci loolu la ne. prochaine station. waxoon naa leen benn affaire nee naa Ousmane Sonko ci entraînement la nekk ci jàng alxuraan ci noppaliku Ousmane newul ci yooyu de Ousmane il est très fier waxoon naa leen ko nijaay ji bu mu génne wax na leen ko nee naa leen Ousmane nekkul ci dil newul ci linja newul ci mafia mi ngi foofu di jàng ay am di entraîné. dimanche bi ñu indil ko njabootam mu football ak ñoom point loolu la nekkee ñë dugg yëpp daf leen envoyé balade ba may wax ci Ousmane Yara kenn waxul ci Ousmane Yara benn yoon dafa dugg benn yoon la fa teg tànk Ousmane Sonko xamal ko boppam na ko téye kii yow yaay kan foo bokk. station Berry UCAM. matu fa une minute dem yoonam. waa mbay nga xam ni mu naan ay xawma lan international la mu naan ay Euh, euh, xaw ma lan international waa ji mbay nekk APR ba mu fa duggee Ousmane ñaari kàddu la ko wax mu dem yoonam moom si xul ak nit ñëw ci dil Atepa bu mu fa ñëwee tamit dëgg la ko wax dem na yoonam kon Ousmane mosul dil ngir yàlla nit warul ànd ak Ousmane sax di wër ay intérêt Ousmane nee na don de soi pour la patrie nit ki gore wet gore wetul ko goré don de soi pour la patrie bokku la calculateur yi nga xam dañu bëgg né and ak Ousmane Sonko di calculer nan non buñ ko voté après Ousmane mun na génn ay na nga ay ban ban liberté mo jar lolu yow sa liberté jar na la ñi ray ay nit ñu war leen atté criminel yi yeen ñi mi ngeen bàyyi criminel yi ñuy dox ak nuñ leen toroxalé mais yéen xanaa gisu leen doomu adam ñu leen ray nu mu ñaawé xana gisu leen pop doomu adam yi ñu toje xana gisu leen bal fetal yi nekk ci biiru doomu adam yi xanaa gis leen nu ñu toroxalee Fulbert Sambou ray ko xanaa gis leen nu ñu def Didier Badji disparaître loo ko xanaa gis leen nu ñu def François bu ray ko ne am nañ vidéo 13 minutes ba léegi génneeguñ ko xanaa gis leen nu ñu def doomu aadama yi même blessure yi nga gis doomu aadama yi seen loxo yi dagg vidéo yooyu bu ma ko tegee fii ci internet bi Facebook daf may bloqué parce que bu ma ko fi jotee def sax Facebook daf ma bloqué ne ma non c'est

kenn mënatul nalaw Sénégal ndax criminel u Macky Sall yaa ngi dox ba léegi. station criminel yaa ngi dox ba léegi criminel u Macky Sall yaa ngi wëndaalu ñi ngi dox dañ ñu wax Macky Sall na atte lii ñu jàpp criminel yi ñun ñu nalaw ci criminel yi di dox mënuñu nekk. plus de quatre-vingt-six doomu aadama yu ñu rey reyin gu ñaaw ay manifestant criminels yi leen rey ñi ngi dox ñu ne ñun nanguñu loolu tey sénégalais dañu waroon dem attaquer ji assemblée nationale ne kenn du fi voté benn loi. lolu moy deug tay sénégalais yi marche bo vers l'Assemblée nationale la waroon don parce que nit mënu la ray ba paré dem toog fenn di waxtané nan la mëna sétalé mbirëm lolu sénégalais tay tay tay tay tey tey peuple bu gore peuple bu dese ngor touti touti ngor tay dañoo waroon nekk biir bunt place de l'indépendance place de l'Assemblée nationale diko xex diko xex diko xex c'est criminel sax di tok nan dañuy voter loi bo c'est très criminel c'est-à-dire dëmm rey la jaare la lekk sa rongo ñu maam ñun waratuñu toll sax foo xam ne ñoom ñii am nañu fit di ñu yàpp bay toog biir assemblée nationale naan kaa la ñu voté amnistie pour effacer crime yi loolu warul yoon man xaw ma nag lan moo tax ñu ñu loolu moom je me demande lan moo tax ñun suñu njiir yi yàpp ñu yàpp boo xam ne man ñun su problème bi si suñuy kanam la si suñuy doxalin la dañoo amul fulla wala dañoo amul fayda lan moo tax njiit yi def ñu xaj lii benn tubaab amul fit fit xoolal ñii xaw ma dañoo ëpp ful la seen kanam yi benn tubaab amul fit njiitu tubaab di def lu mel nii. rey tubaab yi bu pare dem assemblée nationale naan day voté amnistie ñii am nañ ful la boo xam ne ñii nii taxu fii am nañ ful la boo xam ne kenn yabu leen. xaw ma lan moo tax ñu ñàkk fayda ñun ñun xaw ma lan moo tax suñu kanam yi joxe kanamu ñàkk fayda ba njiit bu jóg rey ñu ba pare dem assemblée nationale day day waat dafa war a arrêté man xaw ma ñii lan la ñu ëppalee. dem fa damay toog ak ñoom me damay xam ne ñii ñii ñii lu ñu am amuma ko ñii respecté nañ leen jox nañ leen cër ñii seen trido amul fitul rey leen ba pare ci ñoom nan day woote euh, euh, assemblée nationale pour amnistie amul Amérique amul France amul fenn ci ñun rek la am lan moo tax ñun suñu ñuulaay la wala wala suñu ñuulaay moo xeebu wala suñu couleur peau moo xeebu wala ñun ñoo ñàkk fayda c'est pas normal c'est pas normal luy dëgg man man am na lu ma naqari du ma neexa ah. moo tax bokkuma ci sax gars yi toog naan dañuy seetaan ay assemblée nationale naan ay Mame Diarra Fam nee na lii Modou Ndiaye nee na laa loolu dafa ñàkk fayda man nekkuma ci monde boobu mun naa nag bokk benn peuple boo xam ne dañ dañoo mujjee ñàkk fayda ñëpp yab leen mais man bokkuma ci peuple bu ñàkk fayda boobu noonu bokkuma ci te duma ko nangu man munoo rey sama njaboot ba pare après dem di ko di ko réunion di ko waxtaanee ma toog di la setaan xooluma sax assemblée nationale ba xam la fa ne gis naa ku nekk di publier publier mel na ay jigéen comme ay jigéen bu kenn waxee dara nga ne merci bu kenn waxee dara nga ñëw benn bennal kañ la peuple bi mel noonu kañ la peuple bi nekk peuple de lamentation peuple boo xam ne dañuy toog kese lu ñu leen teg ñu tegoo ko toog biir ci ci mur lamentation yi di jooy rek comme ay jigéen ay maam Diarra Fam nee na lii ay Modou Ndiaye xulla député nee na laa ay nangam na yow commentaire rek ko lu ma naqari neexuma bu ma toogee ci réew mi duma ma yëy du ma yàbbi noppi di leen xool ngeen xam ne am naa lu ma metti trop te lu ma metti bu ma ko wanee ci saaga nday yu metti laa koy def moo tax su ma préféré muñ xam ni lii sama peuple ñoo ma ko mën a teg sama peuple ñoo ma mun a teg lu mel nii ma toog muñ ko bala ma jappante ak ñom parce que man mënu ma nangu ay nit ray sama nit ba paré nek bir assemblée nationale diko ko dawma xexi ma nek ci di commenté kii nee na lii kii nee na laa kee nee na lële man ñàkkuma fayda boobu noonu ñàkkuma fayda bobu heure bi waroon na fekk peuple bi nek buntu assemblée nationale ni ñappante ak ñom xamni li affaire peuple bi la peuple bi lañu ray sen dom peuple bi lañu ray sen dom ay ray ñu ñaaw bu doon ray ñu yarafet ay ray ñu ñaaw a ñaaw a ñaaw Macky Sall premier président a tiré ci Adam plus de 86 morts Ablaye Wade ko Wade morts la fi bilan Abdou morts et quelques la fi bilan Senghor 7 morts la fi bilan. Macky Sall am 86 morts ak des disparu. dama ne Adam, nationale mais comme ñàkk nañ fayda te mun nañ commenter te mun nañ benn bennal comme ay jigéen ci biir internet bii loolu moom moo tax ku ñu ñë ñu xool yëpp ñu. c'est la première fois dans l'histoire Sénégal am plus de 200 personnes yi bëgg a doon président loolu ku ci nekk ci yéen war ngaa mën a rus te xam ni yow yaa wane ñàkk fayda ba nit bu jóg bëgg la jiite loolu ci ñàkk fayda la bokk. dama ne kër caapa yaasin yaay ja doon caga góor gu nekk bugg na ñëw euh, seeg yaay. mais kër goo xam ne même bu yaay ja doonee caga kër gi am fulla du góor gu neex dugg fa ñun nag war nañ xool sañu bopp muñ demee ba ci réew mi plus de deux cent personnes ku ci nekk golo gu jóg ne daf ñoo bëgg a jiite ça montre que ñun a ñàkk nañ fayda ñun wane nañ ñàkk fayda jigéen ci koñ bu am fulla du góor bu nekkee lay song jigéen bu nekk ci koñ plus de cent góor ku nekk bëgg la tëddee xam ngeen ni jigéen jooju caga la wala ñàkk na fayda wane nañ ñàkk fayda nag ñun peuple sénégalais bi wane nañ amatuñ fulla wane nañ amatuñ fayda ba ku mu neex yàpp ñu ku mu neex jóg sa kër tekki woo fa dara bugg ñoo jiite ku mu neex jóg sa koñ tekki woo fa dara bugg ñoo jiite ñàkk nañ fay ba ku mu neex jóg di ñu dialoguel ba ku mu neex jóg dem naan da nga ñuy waxtaanal si ñun ñun ñun peuple sénégalais bi war nañ am fulla nag fulla jot na fulla jaay Dakar mbaama ñam jeexal ko peuple day am fulla peuple du nekk lépp lu mu lépp lu nekk rek ci wax rek la ko def ñu jàpp ko di ko foowee di ko pamte pamte yab nañ ñoo yab ba ku ñu gis bugg ñoo jiite yab nañ ñoo yab ba golo gu jóg ne kaay ma jiite leen yab nañ ñoo yab ba ju jóg ne kaay ma jiite leen affaire bi nag mi ngi bëgg a tuuru te lu ëpp tuuru te mi ngi bëgg a jéggi dayoo nit dangay am fulla ak fayda man loolu laa gëm loolu laa gëm nit day am fulla ak fayda peuple yi nii dañoo am fulla ak fayda kenn yabu leen lan moo tax sama peuple nekk peuple bu ñëpp yàpp lan moo tax sama peuple nekk peuple boo xam ne ku ko xool bu koo jiite lan moo tax sama peuple nekk peuple boo xam ne seen taxawaay dëgërul ba nga xam ne comme neex dox dem assemblée nationale fooyee fa rey leen ba pare ne dafay voté ay loi amuñu len lu ñuy def au lieu de se rassembler dem devant à l' assemblée nationale pour protester pour manifester wu defuñu ko ñu ngi ci réseaux sociaux yi ku nekk di wax di yàbbi ku nekk nekk fa naan kii moo wax lii kee moo wax laa mel ni dara jotu leen dama ne doomu aadama yi dañuy dee ci dee gu ñaaw dama ne ñun dañoo soxla ñu leeral mbir yi criminels yi ñu jàpp leen arrêté leen le plus rapidement possible foofu la peuple loolu la peuple bi réclamé ci loolu la peuple bi taxaw képp ku wax leneen yaa ngi mafia bakkan doomu aadama yi képp ku wax leneen yaa ngi foowee doomu aadama yi dama ne benn libération benn doomu aadama jarul bakkan bakkan dafa foor bakkan dafa foor amul nit bu bu ñu rey bu bu fi ñëwaat nit dina dugg kaso di génn ñuy dugg kaso di génn deewuñu dara jotu leen deewuñu ñoom ñëpp dugg nañ ci kaso bi mett na loolu injustice lañ leen teg mais génn nañ ñu ngi dox waaye ñu ñu rey bu dee ñun ñoo xeexal ñu jógul ci kaso ñu génn war nañ mën a xeexal ñu ñu rey pour ñoom tamit ñu àtte leen dama ne bu dee ñun ñoo xeex ba ñi nga xam ni ñoo duggoon ci kaso bi ñoo génn buñ ko continuer di xeex dinañ ko xeex ba ñi nga xam ne leen leen rey ñu atte leen ndax ñoo gën a metti la ah. bu ñu saddee ba léegi jóguñu te ci ñun lañ bokk yéen ñëpp a gis policier bu ñëw wéeru ci ab oto oto bu yàqu nat di natt ñu naan lan lay natt ñu foog ne gibier lay natt ñu foog ne day rëbb ay pitax mëna a bal ci ab xalé 14 ans mëna a bapp mu mel ku ray gibier di jubilé fomp ay loxam dem lañ yu mel la crime yu mel non lañ biir assemblée nationale Ben, mode de protestation peuple bi defu ko mode de révolte et d'indignation peuple bi defu faut matuñu assemblée nationale protester éveil de conscience populaire bi des la population de l'Assemblée assemblée nationale ndem mais bu nous le la peuple bi nous assemblée nationale Il drapeau non non non à l'amnistie ay drapeau un banderole non à l'amnistie télé yi nekk fa lepp nek fa éveil de conscience sénégalaise bi des na torop torop torop torop torop torop torop tiaxan bi bari na fo bi bari na kaf bi bari na te bakkan dafa rot te bakkan dafa fort non à l'amnistie Macky Sall non à l'amnistie nous disons non à l'amnistie arrêtez ces criminels immédiatement et sans condition Nous mettre leen hors d'état de nuire Macky Sall le peuple l'a lay peuple bi nek nañ ci ben marteau ak enclume entre le marteau et l'enclume bo xamni ñom est-ce que sax ils se rendent compte de ça Macky Sall dem def ay dialogue lu mu ko neex di faut sañuy institution di fooyee sañu constitution ba mu demee jox ko constitution bi conseil constitutionnel rejeté na lepp nénako sama waxu démb moy sama waxu tay choisiral date avant le 2 ñu def ay élection loolu la ko conseil constitutionnel wax

Le peuple avant tout, la patrie avant tout, arrêtez de sacrifier la partie. Arrêtez. C'est un intérêt personnel, n'ayez côté. Arrêtez. La patrie avant les partis. C'est un intérêt personnel, ngir yalla arrêtez len ko sinon ken duñu au Sénégal. Domu adama du au Sénégal, Domu adama du au Sénégal. Bu féké ñun intérêt rek lañuy wër. Ay avons yo xamné lañ ay nitu intérêt kessa lañ. Chaque jour lu ñëw seen intérêt lañ ci xol un intérêt lañ ci xol motax parti ça saa parti yeb day xégn parce que parti intérêt rek lañuy dox intérêt nous sommes pour des convictions nous ne sommes pas là pour des intérêts crypto personnels nous sommes là pour des principes ak déontologie motax ma am cër gogou respecter Ousmane Sonko Que kuy dox and ak mom di wër say intérêt jappal trahir le concept de Ousmane Sonko il trahir le concept du patriotisme le patriotisme a un intérêt personnel la ce le premier le panafricanisme a un intérêt personnel à la raille. Il faut dafa Donc, donc pourquoi koo a intérêt politique la calcul politique dama ne taxawel on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour ça donc il faut que ça soit clair conseil c'est ci le mu mi car fa y du bokk Sonko Jomay, Sonko c'est toujours Jomay. amul Kenen. conseil constitutionnel nee 20 vingt yooyu ma choisiroon fi nekk dix-neuf yooyu fi Ken du ci benn pas du ci benn intérêt calculer ay pour Sonko a pour yalla lañu yalla musal ci seen intérêt ndax du intérêt nation bi du intérêt indépendance du intérêt développement intérêt kese la bakkan nak amul lu ko gën a fort ci doomu adam bakkan amul lu ko gën a fort mooy loo xam bu joggé ci doomu adam dootu exister ci te Macky Sall limu ray dafa bari dama ne le peuple dit non non à ce loi criminel tortionnaire sectaire non loolu la peuple sénégalais bi wax lu dul loolu du leneen lu dul loolu du leneen voilà foofu laa yem man déglu ma maam jaara faam bay xam lu muy wax déggoo ma leen wax temps bi ngeen am sax di leen xool xooluma ko am na lu ma metti ba seetaanuma ko kon dégluwuma ko xaw ma lu ci ndaw lu may gis sax yéenay publier barke alxuraan taaluma benn yoon télé wala dara luy may woon assemblée nationale barki laa ilaha illallah mer gi ma mer dama ne bu doon man sama man kese ay moroomu Séné moroomu Mollah Morgun ñoo nekk Sénégal tey assemblée nationale dadul am sax dadul am ba mu fi bëggee am en 2011 gars yi dañoo dem takk takk ay buum takk ay ay chaîne chaîne seen bopp buntu assemblée nationale génn di xeex ba mu fi bëggee am en 2011 kon tey la fi mën a am kon man amna Rusna rus jomb di seetaan conseil assemblée nationale ba ñi voté ay loi yo xam ray ay nit toroxal leen génn ay centaines de milliers de nervi ray ñu ñaaw ba pare tok na dañ koy waxtaanee man jomb na rusna au nom de nos martyrs rus di seetaan loolu. parce que man sama war waref moy heure bi warana fek buntu assemblée nationale ma ni di ñom nyom kon man Rusna man moma bu ko nit di def man ma ngi sen tombe di leen ñaanal ñom man ma ngi sen tombe taxaw sen tombe di leen ñaanal. loolu mooy sama wareef man bu mu munul dem xeex buntu assemblée nationale dama war a taxaw di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yërëm taxaare leen ajana xeex bu ngeen xeex yàlla bu mu vin yàlla boo leen am société bu leen di trahir yàlla boo leen am askan bu leen nar a trahir seen xeex seen ñaq seen deret yàlla na jëriñ Sénégal yàlla bu mu doon luy neen yàlla yàlla bu mu doon luy vin yàlla doon loo xam yàlla doon njëriñ askan wi man man heure bi maa ngi seen bàmmeel rus naa toog di seetaan assemblée man man sama ngor mayu moko, ko sama jom mayu ko sama fulla mayu ma ko ñi ma di xex Rusna, taxaw di seran assemblée nationale waru sax exister tay tay kenn waru fa dajalo man man dama ko rus motax tax bu ma fa nare tok di seran cette merde là ce banditisme def ko nare def ma yam ma muñ te ñaanal leen te kenn ki fi ñew war ko lijeenti voilà ñun lu fi Sonko bàyyoon loolu moo fi ne nee na Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko depuis boobu Sonko génnaatul génnaatul wax kenn ne leen bàyyi leen jomaay génnaatul wax keneen ne leen jiital leen ma ba bu leen trahir Sonko Ousmane Sonko bañ ko trahir mooy bañ a xamal mooy trahir mooy def lum leen santul mooy def lum leen bàyyeelul Ousmane Sonko waxu leen ngeen négocier ko. Ousmane Sonko waxu ngeen dem na négocier ko ne da ngeen di nangu sax ñenn nan dañuy nangu sax nan dañuy def amnistie bi ci ay calcul koku du Ousmane Sonko. du Ousmane Sonko je vous le dis très sincèrement Ousmane nawul ci dil nawul ci mafia kep wala traître nga tu as trahi Ousmane Sonko Ousmane Sonko s'en fout de cette liberté buñ ko mujjé wax. daf leen wax lu leer daf na leen hey ñu ne waaw mën leen yeen xam ngeen nu ngeen ma fi duggalé bo le ma fi gëné xam ngeen gaay na ko ay amnesty mëna andu ànduma ci dama ne ngeen ubbi enquête yi waxon na leen ko fi ubbi leen enquête yi ñu arrêté criminel yi ubbi leen enquête yi ñu arrêté criminel yi loolu Ousmane Sonko wax bugu bugu di and ak gor dama bugu di and ak garmi dama bugu di and ak nit bu deggu sama xexu demb moy sama xexu tay daray àdduna taxul ma bàyyi ko dara amnistie bi ñun sañuy intérêt ma sañuy intérêt d'après Macky Sall mi ngi ci d'après Macky Sall day mën gisuma ñëw Sénégal di taxawaalu jaraluma ko man je préfère ñu yi que ñëw Sénégal di taxawaalu ñu ma koy yéen naam moolaa yéen tam boole nañ leen ci dama ne foog sa loi la sa loi foog Sall foog Macky Sall gouvernement am gisuma ci sama intérêt bu fekkee sama intérêt mooy après lii lépp amnistie man ma ñëw man jomb naa loolu man di dox Sénégal ñi nga xam ne ñi ngi ci suuf si mat plus de quatre-vingt-dix sénégalais man ma gën leen ba ñëw di dox Sénégal naan am naa liberté ñoom nag ñoom fu ñu leen dugal kañ lañ fay génnati kañ dama ne man loolu amuma fierté boobu noonu foog loi bi foog bandi yu koy voté foog bandi criminel corrompu député yu koy voté foog ces imbéciles de la république foog Ça y est, kon gagne. yi man lu ma leen wax focus sur ce combat là procédure bi ak processus électoral bi na mu meloon noonu la maintain 19 yi nañu nañu defal sañuy élection le plus rapidement possible avant moo dem yoonam ñu toroxal ko ci digg xarnu bi Sonko mooy Diomaye Diomaye moi, Sonko ce concept là mon écart, fi ba léegi dóor élection yi gagné premier tour dox suñu dox bu ñu paree kek na arrêté leen lépp policier bépp policier ñu ubbi enquêtes yi enquêtes yu saf-sap arrêté bépp policier bu rey nit arrêté bépp gendarme bu rey nit ab arrêté bépp criminel bépp nervi bu rey nit arrêté numéro 9 bi arrêté ñëpp ñu doon tiire arrêté lépp dëgg seen maam ci kaso yi ay prison ferme toroxal leen ba ñu torox tottu jël alal bi ñun peuple ñi gañe indemniser les familles loolu kese moom moo mun a siggil ba pare ñooñu ñu honoré leen ñi nga xam ne dañoo xeex ngir Sénégal ñu honoré leen honoré leen à leur juste valeur en tant que martyr loolu kese mooy dëgg lu ñu leen waxul lu ñu loolu du dëgg man loolu laa gëm mooy sama principe mooy sama idéologie Ousmane nag bu ko kenn wax ci ay dil ci àgg naa leen ko wax yàgg naa leen ko wax Ousmane newul ci ay dil Ousmane nekkul ci ay dil ku dil sa dilu bopp la Ousmane du dil jegewul dil xamul dil waa ji gore la barke alxuraan waa ji gore la même buy jël réew mi di ko jël ci ay di ko jël ci ay banditisme ak ay wëyu ay sàcc da koy jël ci ngor da koy jël ci jom man loolu laa gëm ci doomu aadama di ko jël ci ay principe ay principe fondamental man loolu laa gëm moo tax ma am respect ci waajooju ma am respect ci waajooju respecter nos martyrs peuple sénégalais digne et intègre respecte nos martyrs jiwuñ leen lii jiwuñ leen lii ñi ñu rey ay doomu aadama la ñàq ak dara gënu leen leen ci ndey gënu leen leen ci bàyyi ku ci nekk na jàppee boppam de waroon nañ ko rey tey

Assalamu alaikum. Ina